mbokk yi dal leen jàmm ba njawaali mbay la soppana bi nee naa leen moom ma gënal ci tur bu ma waaye mun a ooyee di leen fàttali ne rek yéen ngi ànd ak seen programme yu yóbbali bés bu muy soxee ko fii ci Sahel Network TV capitale yi Gambie Banjul ne naa leen ñun fii lañ am ma seq koog nag ma ñaari ah, sama ñaari malaaka yi waaye nag damay wax ne am nañ gën ci social issue bi waaye xam ngeen ko rek ndeysaan bu gaata bu xees bi ne naa ko su njooloon dina nii wala ci loolu kenn mënu ci dara yàlla ko dogal maa ngi nag ndeysaan anti Aïcha bi bi fees macha allah su ma rek suma xol sedd <laughs> ah, anti moom moom suñ bàjjen la ah dama ko tuddee suñ bàjjen rek muy Cissé Ngaari Njarm yow moom goro la ci man jabar la si man ndax maa nga bàyyi Cissé Ngaari sama liggéey ca kër ga sant yàlla bu baax a baax mbokk yi ñu def dara rek lu mooy ah, anti awa mi la ñoo njëkk a waxtaanal rek ah, dugg ci mbir mi am kii yaay yow yaay anti moringa wala yow yaay Mrs moringa yow yaay mama moringa <laughs> <laughs> ah loolu la ngay wax de waaye nag maa ngi tudd Ndeye Awa Cissé. Ndeye Awa ñu gën si Moringa Lady. Moringa Lady. maa ngi judo Banjul fi foofu la bëggoon a ñëw parce que juddoo sa jaar jaar la bëggoon a ñëw non non yow fa naa Moringa gi mooy dox si sa yaram gi xam nga Moringa moom buy dox si yaram nit maanaam bu nit ni nii yow da nga koy xam nga mooy loolu loolu laa bëggoon a laajte Ndeye Awa Cissé Cissé ngaari njar meew di ko ice cream di ko lii di ko lii jaar jaari Ndeye Awa maanaam fan la judo fan la jàngee high school primary school secondary school ak yooyu noonu jaar-jaar yi yow. <laughs> ah waaw dama neex trop maa ngi mhm. am juddoo Banjul fii Tubaakuroot. Mhm. am fii yoroo fii laa xamee baax. Mhm. dikkoon si kër bu ñoo wax Dumbia Kunda. ñëpp ñu gën ngeen xamee woon ko kër Paa Dumbia. so ma demee am uh, school Albion. Albion mel na Albion primary school duñ leen daan tooñee. <laughs> Albion benn pompe. <laughs> waaye benn pompe boobu de am na moom bëri na. <laughs> ok bu <laughs> ma jógee Albion. am mhm. ma demoon am Jessy Faye. Ah, ma defoon foofu form one form two. Mhm. jamono form ya. waaw jamono form. Calaabay school. waaw bi. <laughs> bi fom ba jeexee nag ma daw sa grade ba dem Paaju. ndeysaan foofu laa defee suma grade eight grade nine. ndeysaan ah, bi ma fa jógee. Mhm. ma dem Muslim High. Mhm. foofu laa defee suma high school. suñu suñu gàtt bu dem collège. waaw defoon demoon naa am um, pour def PTC am ñaari at demoon naa si nekkoon naa si teaching field bi di def PTC waaye bi ma fa nekkee am nga comme. nit ku nekkaa li nga bëgg a daal mm-hmm. gisuma ne woon foofu daal comme suma suma spirit mu fa woon et puis loolu ci lu ma bëggoon la mm-hmm. waaye dama mujjee bàyyi mm-hmm. dem delluwaat buum sa mbay mbay ba rek dégg naa ne euh, ñam nga government naka nga naka nga gisee liggéey government ak ban pàcc ci government bi ci nga ci nga nekkoon ah, man maa ngi si kitchen field bi non gannaaw teaching field bi. wala foofu rek liggéey ci government. waaw si um, ministry of um, uh, ministry of education. as a English and agri teacher. ma <laughs> so ma nekkoon foofu tamit di wéy suma waar. Mhm. si si séddale xam-xam. waaw waaye comme liggéey government ni ma ko gisee daal comme yomb na yombut dafa mhm. dépend comme yow sa détermination surtout gars ñun fi ñu nekk nii. Mhm. su fekkee yow parewuloo pour gros. dafa di di ko ak yow waaye da nga war a um, pare rek pour équipe sa boppa la gis anytime soo gisee lu lu ko sut nga mun nga mun sëy waaw nga mun a def waaw waaye soo taxawee taxaw benn boor rek dafa xala dafa xala doy waar daal nga lu am solo waaw soo gisee lu ko sut waaw yow mi jàkkaarloo ma di ma seetaan déglu li ndaw solo soo gisee lu ko sut <laughs> olof bi setul nag. non non non non li nga wax su waxee olof bi setul rek. non waaye li mu wax li mu wax li mu wax xam-xam la boo xam ne man man ci nit laa ngay jàngee man loolu na ma yàlla bindee gis nga man tey li man xale bu ndaw bu waxee sax dinaa jàngee ci yow benn kàddu nga may wax kàddu googu dama ko dee xalaat di ko xalaat di ko tas dafa wax lu am solo. léegi euh, yaay wax dëgg na yàlla ñu tuddee la moringale di laata loolu mos nga media <laughs> yaay yaa ngi ñëw de kon daal ba ngaa ticc da nga gis ne daal media moo sut <laughs> nga bàyyi ticin fil ba dugg si media noo gisee media noo jàngatee media ak ci ban ci xeeti media yi nga doon def waaw maa ngi doon am liggéey rajo bi ñoo wax ama city limits ma mhm. sama nijaay Babacar Thiam <laughs> waaw maa ngi ko ama nuyu mhm. nit ku baax wallaay ndeysaan nit ku tabe nit ku yaatal njaboot te anga rek te dee te dee te daayu te daayu si aw ma yaay siix la waaw jaaxaan naa lay tëddee so ma nekkoon foofu di def benn programme bu ñoo tuddee youth profile dañ daan fekkee taay ma dugg ko sax si affaire business dañ daan dem comme xool ndaw yi nga xam ne ñu ngi yëngu mhm. si soxali koom-koom ñu dem profile leen ñu mhm. teg seen issues ñu xool nit ñi nga xam ne dañ leen mën a dimbale si seen problème yi is leen si plateforme bi wax ak ñoom ñu xool naka la ñoo exchange ideas ba meet to a point bi nga xam ne dinañ am comme solution to their problem so noonu lañ daan def waaye ma gis na liggéey boo xam ne la dama dama ko bëggoon torop mm-hmm. waaye xam nga rek li ñoo wax rek lu lu nekk dafa am fu moo em mm-hmm. so xam nga yàlla def ma stop loolu tamit dem mm-hmm. dem utali leneen laa lu ko sutati xam nga yéen yéen a ngi ah, mu bàyyooti loolu <laughs> utali leneen lu ko sut la ba utali ko sut mooy media léegi bàyyi na media utali ko sut mooy barati moringa gi wala wala balaa business business parce que business dafa nekk loo xam ne mm-hmm. métier bu tedd la because yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallaahi ndeysaan ma gis si njëriñ yu bëri dëgg la dafa nekk loo xam ne su ma yaay moom la ma su ma yaay single model la woon mm-hmm. mu yar ñu yarin bu bu mucc ayib nekk soo ne jàng ne nasaraan jàng alxuraan namba li waroon si yëpp ñu mu def ko si business la ko defee daan cuub su cuubaan man rek maa nekkoon si doomi koo xam ne daf daan ñemee dem jaay bi ko si nañu leen daan rus mm. su ma maa daan dem jaay su ma demee jaay am tri hotel ma am fifty dollars si tekka saet julli si jotee am ñaari mu bi julli suma critique and drinks loolu am na solo and drink bi moom lekk bi ah, wax na si sekk non man maa ngi bëgg a dee saaku maalo yëpp cee teg every week dinaa teg saaku su ma leen ah tooñ rek ah léegi sunna la léegi sunna la non farata la sax farata la sax parce que bu taawee julli taxaw ñu ne la lekkal. bala ngaa julli farata la farata la farata la loolu am na solo mbokk yi di leen fàttali rek ba léegi ne yéen a ngi ànd ak Sahel Network TV anti ada mu bàyyi la nga joxuñ ko. waaw am na solo. ndaanaan nga gëj naa koo dégg la gëj naa koo dégg tey man moom gis naa fi ay products yoo xam ne product yu yanja lañ yu si mel ni ay ñoom lii moom lekk la wala lii lan la nii. cashew. waaw lii mooy cashew. bii bii la ñuy ringa. cashew ringa cashew ringa. de du cashew ringa de. cashew ringa. bu ko soosee bu ko lu ko soxla gis. waaw ñu gis fi yëpp. Euh, yu mel nii ñu gis fi euh, body lii la la body benefits yi nii. body euh, cream ay ñoom oil coconut oil yi nii. so waaw mu doon loo xam ne moom jigéen ñi dañ ko dee gën a soxla so ma bëggoon laa laaj yooyu yan jafe-jafe nga dee am soo dee liggéey façon yi nii. waaw balaa maa ñëw si jafe-jafe yi li maa njëkk a wax mooy comme liggéey bi lan moo ko tax a jóg lan ko jur. Mhm. loo gis rek dafa am fu mu soo so products yi ñu ngi ñu ngi bootu si organisation bu ñu tuddee Nature's Gift Care. Mhm. soo gisee Nature's Gift mooy comme may boo xam ne dafa jugee si gàncax. Mhm. ñun ñu yëpp toppatoo ko. dooleel ko rafetal ko taaral ko ba yéen ngeen mën koo jëfandikoo. Ah, so products yaa ngi nii. Ah, am nañ si comme. Ah, kii yu bari ñu ñu ñu satal loxo yi. Mhm. Mhm. satal ko set set set jaamu yàlla la bokk mhm. waaw <laughs> so ñu ñu ñu defal ko. parce que ñun suñu philosophie mooy it to improve your quality of life mooy lekkal. lekkal rek wér jarul dem lopitaan jarul jëndaa jarul jëndaa jarul jëndaa garab lekkal rek wér ñu loolu ñu tax a jóg mhm. soo garab yi fi lekk li bagage yi fi gis yépp dafa saxal sa wér gu yaram li ko jógee si cachet bi li ko jógee si lem bi li ko jógee si capsule si powder bi bi yépp dafa am saxal sa wér gu yaram mhm. li boo fi gis rek am na bunta bu moo faj si si feebar yi boo xam ne mi ngi si yaram doomu aadama because bu ko tubaab bi gëstoo gis nañ ne moringa su ma waxee moringa nag am na ñuy wane waa lan mooy moringa moringa mooy nebedaay hmm. nebedaay bi ñoo gis nii rek nit ñi di ko romba bis bu nekk. faana faana ñu ne mbuum ah? waaw ñu ne ko mbuum. waaye tamit am nga nebedaay dafa nekk garab boo xam ne dafa kéemtaane. mënuloo hmm. koo jël rek. Hmm. nga def ko nu la neexee rek nga am loo si bugg dafa am yoon. lu mu nekk dafa nga koo jox aaxaam soo ko joxee aaxaam comme ni nga ko ko war a joxee nga damma ko temps ni nga ko war a damma process ko war a processé. def si li si war yëpp. liñ si wax di ko si fekk. waaw dina def wareefam waaye dangaa gis ñu ko dama time bi nga dama mm-hmm. dafa am solo fi nga koo demee dafa am solo fi nga koo weeree dafa am solo ni nga koo waree dafa am solo ba ni nga koo dénkee sax dafa am solo because what attract moisture ah, ba pare seen sa foofu noonu ma ñëw fa tuuti gisoon naa ne day was a time def naa gëstu si yow ah, ma gis ne comme nebedaay bi yéen doo leen ko dee weer si naaj lu waral loolu tamit waaw am comme dañ gis ne because naaj bi naaj bi lu dul nebedaay sax mm-hmm. nit sax soo fa taxawee su yàggee mu sa yàlla am na nu moo amee direct contact ak sunlight bi daf day xëccal lu bari si moom mooy comme li moom faj si yaram bi doomi aadama soo moo tax bi tubaab bi dafay gëstu magi magi magi suñu daan dem fori garab dañ laa ma demal suba teel wala ngoon mm-hmm. magi noonu daan fore garab mm-hmm. leen na la garab soo fa demee time bu dul suba nag loo fekk rek xob la mm-hmm. soo ko lekkee tam xob nga faa fekk soo ñun dañ demee soo ñu observe am principles yooyu suñ mën a dem fajar ñu dem ngoon fekk liñ wax kon su ma ki waxaan rek xamal ne am na lu si am na lu si nekk dégg soo su suñu defaree loolu noonu ñu isil la ko dama ne ko su suba dama ne ko su ngoon duñ ko weer si ron naaj dégg la naaj moo mun a gaaw a weeral waaye est-ce bàyyi garab ba mhm. déedéet soo ñu weeral la ko si ay anam yu mucc ay mhm. defaral la ko si anam yu mucc ba ay ba lii nga xam ne mooy suuf ak poussière doo ko fekka di nga ko lekk te du kere te du xeram da ngay du la isil benn jafe-jafe ci sa wér gu yaram wala yow euh, products yi lan la dee def si biir yaram yi nga ki nga xamante ne moo koy use waaw loolu moom dina ma neex torop parce que am li ma li ma dee wax mooy comme gis nga yaram boobam su gisee bu métti xam ne am lu mu soxla yaram daf dee communiquer ak doomu aadama amul gémmiñ bu ma waxee yow tànk suy métti dafaa xiiru si biir dafa am ne luy yëy mhm. wane ne am na lu mu soxla bopp bi di seen ting soo gisee mu métti am na lu mu soxla mhm. soo gis na su la yaram bi seenee message boobu noonu yalla si ko mo wasi alxuraan mo ne mujub jamon dina len itti garab bo xam lu len jeexal si seen wéru yaram dina ko faj man de dama jàpp ne moringa la bi gisuma garab bu ko gën a man magal len ko de <laughs> amna sala so man de lol la japp because tubaab bi ñu defee gëstu dañ gis ne mun naa faj lu ëpp ñetti téeméeri feebar si do mi aadama loolu so ko génnee sé feebar yaram bi xanaa kon feebar desatu fa kon kon man fofu lay jaaree pour wax né leen mhm. euh gis nga même jangoro ji ñoo wax ni hmm ma ko fi wax ci télé man maa ñeme lu ne mhm. man maa ngi man maa koy laal dëgg dëgg ah mm-hmm. gis nga garab garab gëm-gëm la rek mm-hmm. te tey ji walla ñii am coronavirus gii buñ gëmoon ne moringa gii dina leen faj dina leen faj mm-hmm. parce que lu toll si ñetti téeméeri jàngoro mu di ko faj te dafa wax waxin boo dafa wax ci biir waxam lu ama am solo gis nga mag ñi li mu la wax dëgg la gis nga garab dafa am waxtu buñ koy dog te garab dafa am boo koy dog loo koy jëndee benn am na si ñenn ñoo xam ne bu ñu daan doggi garab dinañ yóbbu xorom moom la ñoo yoole dog li ñoo dog wala ñu yóbbu maalawu xaaraan yoole ko dog li ñoo dog wala ñu yóbbu dugub wala ñenn ñi dañoo naan gis nga sóoratul faatiha mm-hmm. moom ngay jàng pour pour jëndee ko mbooleem garab té limu la wax dëgg la soo ko dogee yor-yor doo ko fekk dara waaye boo ko dogee fajar fekk fa dara boo ko dogee bu jënd bi sox fekk fa dara kon eh, am naa njort bu baax a baax ne eh, fi ngeen teg seen tànk foofu la. waaw fi ngeen teg seen tànk foofu la ñu eh, gis ne nag ci jamono ji ñu nekk nii lii moom ñaata xeeti vitamine la day joxe. waaw comme vitamine si fa nekk ah. am comme tubaab bi dañoo wax ne comme gis nga su fekkee ne nga jënd benn kuddu sungufi nebedaay bi moo gën nga lekk sarans. Mhm. fukki yoon. Mhm. am banaana. téeméeri yoon. Mm-hmm. spinach bi ñoo wax am moo mu dafa am ay vitamines six times am comme lekk xaaf kudu moringa bi moo ko génn. est am na ay ions vitamines minerals zinc potassium magnesium. Hmm. so vitamine six. loolu nag laa <laughs> <laughs> xam naa ne ayoon moom mën nga koy wax ak ah, waaw <laughs> loolu yëpp mi si loolu yëpp mi si moringa bi. Hmm. tubaab bi firndeel ko. Hmm. ñi ko ñi ko test tamit gëm ne mu ci. Mhm. mébét nañ ci am. ñu mhm. dugg si yàlla may ñu si ndam. Mhm. ñi ngi def ba tey ñi ngi def leen gistu. because dañuy gis ne comme li nga wax si affaire coronavirus bi sax. man mën naa koo firndeel because. tubaab bi seen bopp dañ wax ne comme. the only way to get out of this coronavirus is to boost your immune system. because xeex bi. ja soldaari yaram yi ñoo ko nekk di xeex. so is there any other way to prevent yourself soo lekkee lii mu dooree sa sa daal yaram ba su kuréel ba duggee. Mhm. mu fajal la ko sax te doo ko yëg. ah kay ah, ah man damaa damaa recommend at least am ku nekk at least idée nga nga try nga lekk am moringa. Mhm. su fekkee mënuloo ko jënd tamit nga. is around guy fi mën nga ko jël nga bu ko baxal nag dinaa maye benn tip bu ko baxal baxalal ndox ba mu tàng nga raxas sa moringa. noonu laa sotti ko si bàyyi ko mu xalaa yéba nga jox sa ay famille ñëpp naan bu fa def bu fa def sukkur soo amee lem nga def soo fa amul nga sati ko sompal ko tuuti xorom affaire bi gën a neex nga naan musal sa njaboot coronavirus bu mun cee génn nga gis business yi ñu delluwaat baag ci niñ meloon. balaa loolu noonu noonu bu leen fàtte nag waxtaan gi ne waxtu. waxtu waxtu ngay dem de waxtu ngay dem de. solo mu liggéey ko man loolu laa bëggoon mu tinkal ñu ko tuuti ah maanaam lu mel ni capsule ñu gis moringa bi nga jël ko defaree ko capsule yow loolu naka nga ko mun a defee capsule ñu xamee ko loo xamante ne ah tubaab yaa ko liggéey tey ñu gis ne moringa liggéey na ko nga wax ñu si tuuti rek nga tinkal ñu ko waxtu xoj na capsule yooyu sax xamul luñ koy defaree <laughs> waaw capsule bi nag ay dee capsule bi soo gisee mu ñëw dama am yenn client yoo xam ne dañ lay jënd suma produit suñ ko jëlee ñu ne ma ah bëgg naa lekk moringa bi waaye su ma ko xoolee suma yaram bi du dee nangu wala comme amu time ma dee busy I work from eight to four du ma dee am time yi lekka soo su ma ñibbee kër dama ko dee miss ak yooyu ma ok

tamit lem bi tam di same thing loolu tam lañ ko jël daf ko tuddee ko xoni ringa lem moom waaw lem moom tamit yàlla wax na si moom si alxuraan waaw boobu tamit lem lem beneen affaire la so ah, xam nga xam nga lem moom plus moringa mooy mooy extra taw ah kay bàyyi lem bàyyi lem am na solo mbokk yi ndeysaan jërë ngeen jëf fa ndeysaan li olof di wax rek lu juba jeexul jógu fa dina fi dellusiwaat ci beneen jëmi jamono insha allahu taala parce que yu am solo yi nga xam ne moom lay jaay ñun di lañ ko ko toppal benn par benn insha allahu taala ba ba ba ba réewi Gambie wala du ma wax Gambie sa waaye àdduna wërngal képp insha allahu taala dinañ bugg di ñëw di ko seet si parce que lii ñun lii lañ soxla ci réewi Gambie jigéen na ndaw la te mu ngeen daan dooleem te gis nga lii tey jii bu dee tubaab yi la ñun dañ koy jël eno ñun it nañ jël suñu suñu bës enu ko loolu laa leen a ñaan waxtu nag nii la ñu mayoon mbokk yi ba njawaali mbay la sopp na bi anti ada anti Aïcha ak sunu jigéen ju baax ji anti Ndey Awa Siise Ngaari njarmeew ice cream ak banana jërë ngeen.